ci wàllu DER bi comme rencontre bi nga xamante ni bi ci lañ nekk nii pour euh, waxtaan ak nit ñi sensibiliser leen d'abord lu ni ñu leen di sensibiliser parce que DER bi euh, dafa jëm ci les porteurs de projet euh, képp koo xamante ni bi ndaw nga wala ngay jigéen aussi am nga possibilité pour bénéficier wu ci ci DER bi léegi nag phase bi njëkk mooy il faut ki nga xamante ni bi bëgg na cee jariñu mu nekk un porteur de projet d'abord léegi nag bu boo boo créer sa projet ba pare DER bi mett nañ ko ubbi nañ ko mu nekk une plateforme léegi nag boo bëggee bénéficier wu ci loolu da ngay dugg ci plateforme muy www euh, euh, DER financement point com boo duggee foofu nga créer sa compte boo créer compte ba pare dinañ la am ay lu yu ñu la laaj léegi nag yooyu ñu lay laaj boo ko remplir ba pare dinañ la laaj aussi sa projet euh, résidence ak photocopie carte yooyu lañ lay laaj yooyu boo ko boo ko déposé euh, yàlla mën naa dogal ñu woo la parce que comme ni ko président de la république waxee dafa yokk enveloppe bi pour ñëpp mën cee jariñu ndax gis nañu tooywa tolluwaayu dëkk bi ak tolluwaayu réew mi ni mu mel looloo tax mu yokk enveloppe bi ba képp koo xamante ni bii porteur de projet nga wala ngay jigéen di nga mën a bénéficier wu ci ci loolu noonu. d'accord léegi boo gisee sax loolu moo tax ñu dajale fi ndaw ñi pour waxtaan ak ñoom. ndax euh, remarqué nañ ne Diourbel vraiment wàllum xëy mi dafay dafay tumuranke dafay manqué lool ñuy lancé appel ci président de la république wax ko ne ko dëkk bi vraiment euh, toll na foo xamante ni bii euh, ndaw ñi fi nekk am nañ seen i diplôme ñi war a jàng jàng nañ ñëpp ñi ngi ñi ngi ñi ngi seen diplôme ñi war a def formation defi nañ seen formation léegi nag ñooñu il faut ñu xool ba xam nan lañ leen di jàppalee ñu wutu ñu amum xëy parce que ndaw ñi. wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ ñi ci war a jàng dem nañ jàngi ñi ci war a defi formation dem nañ defi formation kenn nag la ñuy lancer appel muy le président de la république mooy mu dugalaat loxoom ci wàllu employa employabilité ci région bii di région Diourbel su ko defee képp koo xamante ni bi jeune nga te yor sa diplôme boo ko de ñu ñu jàppale la nga mën a amum xëy parce que dama yaakaar ne ndaw bu jugee dem jàngi bu jàngee ba noppi dañ ko war a jàppale mu war mu mu amum xëy parce que moom mënul jàppale boppam état bi fi nekk moom moo ko war a jàppale. kon nag loolu moo tax ñu dajale ndaw ñi pour waxtaan ceeg ñoom xool ba xam ban stratégie la ñuy teg lancer appel ñu ñu war a jàppale jàppale ñu parce que gumba la lenn dong mooy kombaam lenn dong moo ko ñor mooy lu jàppale ñu jàppale ndaw ñi nga xamante ni bi ñoo fi nekk te yor seen ay diplôme ñi bëgg a def formation ñu jàppale leen ñu defi formation jigéen ñi fi nekk aussi itam yor seen ay projet te liggéey. wàcc wàcc seen lépp sacrifié wu nekk nekk ci dëkk bi sonn lool wax dëgg yàlla war nañ leen a jàppale ñu am financement parce que jigéen ñi dañoo sonn looloo tax nag ñuy lancé appel wax ne bëgg nañ ñu jàppale jigéen ñi jàppale ndaw ñi ñu amum xëy ñi ci war a defi formation ñu jàppale ñu def formation. am na am na benn journée sociale boo xamante ni bii ñu ngi koy programmer dañ ci waxtaan ci suñu biir di ci woo bépp autorité bu nekk ci dëkk bi parce que journée boobu dañ ko bëgg a def ngir jàppalante. ku wax ko wax défense défense dina dina bari lool vraiment te jamono ji xaw naa la kon jàppale sa partagé ko ak sa morom parce que weer wi weeru ngëneel la loo ci def suñu borom dala koy fay kon nag dañuy dañuy dañuy programmer benn journée journée sociale lay doon journée boo xamante ni bii dañuy woo autorités yi fi nekk yëpp ñu ñëw dugal seen loxo ci journée boobu ngir jàppale euh, jàppale waa dëkk bi jàpp jàppale ñi nga xamante ni bii wax dëgg yàlla euh, parce que koor moom ku ko wax wax dépense comme ni ma ko waxee léegi kon nag euh, journée boobu la ñuy programmer incha allah fas yéene koo fas yéene koo def te ànd ceeg waa koñ bi yëpp nag incha allah.